Ah, doomu mar la tundu mar faafoo yaakaar ko daaw mu jël deuxième meilleur leader waaw at bi baa ngi waaj a sifflé ñaari xale de saan ñaari xale yaa ngi noonu Liss Ndiago bi mu fi mujj si défaite la jugee waaye Ardo bi mu fi mujj si victoire la jugee saan ñu ngi def placement de para waaw dina leer si kanam. am nga Liss Ndiago dafa dugg parcelle daanu Ardo dugg jàmm gën caatu foora ñu ne déedéet mu dugaat jàmm gën mu dugaat foora daan saba tey mu ñëw jël Liss Ndiago ndax Liss Ndiago de koof na dama juumoon wala damay ñëw di fiyaat sam bopp wala Ardo day ñëw ne maa mën dina leer dans quelques instants daa jam loolu cokkaas la. loolu cokkaas ñaari xale yaa ngi noonu. Liss Liss remise na ko mu bañ. Liss remise na góos mu bañ. Ardo Liss Ndiago. Ardo Liss Ndiago. daan Liss Liss si kawam. Liss Ndiago Ardo. Ardo Ardo dox na si kawam Liss damis ko Liss def na gauche droite Ardo Liss ñoom ñaar xas-xas la si signature ba tey dina leer eh Liss jàpp na gauche droite xeex bu ñuy xeex dëggul si ñoom déedéet daan Liss Ndiago ndeysaan eh Liss remise na ko daa tekki benn fas lal ko saan Liss Ndiago ardo Liss Ndiago ar ardo ñaari yaa ngi noonu journée Diaks Production jax siri sring production gannaaw bi booy ma doon jëlee drapeau muy drapeau Ami moom booy ma doon doomu ndimaag bi waaye dem ci grand combat Liss Ndiago Ardo Liss Ndiago Ardo Eh, Ardo dox na ci kawam ne nee ko taxawal eh Liss jam na de mu bañ daa def na tekk Liss Ndiago remis na ko ah la pataake amatut paa bi ko doon defar ba mu beleen dafa nekk defaraatul beneen paa bi defar la pataake ba mu defar beleen defaraatul beneen wala beleen de kum tan waaye Liss remise na ko Liss Ndiago remise na ko Liss Ndiago teq na ko Liss Ndiago da ngaa remise ko Ardo yooru na Ardo yooru na baa wóor na arbi na bëre leen xeex nañ ñoom ñaar saan liis njaago Ardo eh li li jël na ba liis njaago daan na ko liis njaago daan na Ardo liis njaago daan na Ardo Liss Ndiago daan na Ardo Liss Ndiago xale jàmm ko ay waay Liss def na mën na waay ndeysaan doomu jàmm noonu Liss Ndiago ngi noonu xoolal Liss Ndiago lim du isaat bi benn songu la daa doon na coppe tànk bi daw gitaar ko daw jàll moom gitaar solo